sagal sagal sagal nga sa baay borom daara ji de waaw oh. sagal mm-hmm. nga sa baay de wa mu waasilan xamlal amaanati innaka nasru shariati wa tariqi tijaani ku ko yewoon tuwaawan mu kontaan tey waasilan xamlal amaanati innaka sagal nga sa baay de wa mu waasilan xamlal amaanati fii mooy Wakaam wala fii mooy Yoof ba mu waasila waa Yoof damay wax ni samedi tey bi yéen a jël première u première u première yi. deux mille six la borom daara ji bind xasida bi waaye bu fekkee woon sa jotaay bi xam ne tey kontaan na. وصلة الأمانة إنها Oustaz Assane à 2006 bi borom daara ji waxee ni xilaas bi lay gàmmoo diw yaa way la abrahatin yàlla def fekkewu ko jamonoy ndox jamonoy ndox jamonoy ndox gis nga ci 2006 boobu ci la bind Serigne Mansour Jamil bayit bi wa mu waasilan xamlal amaanati. bu du suura Jamil dafa nii bàyyam borom daara ji way la ko wa mu waasilan yaa ay da borom daara gi nee na Serigne Mansour bu doon certificat maa ko jàllal mu jël première. borom daara gi nee na bu dee besam lay def maa ko jàngal moo jël première. borom daara gi nee na bu dee bag la maa ko jàngal moo jël première. maa ko jàngal xilaasu zahab bindu maamoom Cheikh Seydil Hadji Malick mu dégg ko nu ko kenn mënta déggee Serigne Mansour ne Serigne Mansour wa silat xama amaanati innaha borom mu mën firi nu ko kenn mënta firee wa oh, ko Cheikh Seydil Hadji borom daara gi nee na ma ànd ak moom bàyyeekoo Sénégal ñu dem Makkatal Mukarrama moo ma defal tawaaf moo ma foog lu hajarul aswad borom daara gi nee na ma ànd ak moom ca zawiya Cheikhuna Ahmad Tidiane Chérif may joxe tarixa bi muy joxe sarti borom daara gi nee na maa ko defal tarbiya maa ko jàngal maa nattu xolam ba xam ni Serigne Mansour yayoo na ko الله عليه وسلم حول الأمانة إنها Oustaz Assane Serigne Mansour nee na li nekk ci sama xol bi xajul ci téere yi ma way ko doomi Seydil Jamil وواصلا حول الأمانة إنها borom daara gi nee na yaram yu mayeetu ko at yi mayeetu ko ma xam ni damay wuyu ji sama borom وواصلا حول الأمانة إنها Oustaz Assane borom daara gi dafa tëdd France feebar ci hôpital bu ñuy wax Neuilly sëriñ Habib doomu xalifa bi nee na sama bàyyi talaata muy nelaw borom daara ji ci veer yi muy nelaw nee na àllarba muy nelaw alxames muy nelaw aljuma sëriñ Habib nee na ma xool sama montre heure xadaratul jumaa jot nee na ñu def xadara borom daara jaa ngi ci veer yi nelaw nee na ma joxoñ ko ni Cheikhuna Ahmada Tidiane Sërif yaa ngi faas di ma digg sa xalifaa ngi nii di nelaw yeewuwul ba tey nee na ba aljuma jeex sama baay yeewuwul samedi Serigne Mansour bàyyeekoo Allemagne dugg France ñëw hôpital bi teg tànku ndeyjooram borom daara ji eh, daara ji na xilaas bi ma si njamil rek daara ji nee na boo mu waasil kay nga yeggali daan naa toog di firi xilaasu zahab nan saa maam ne nan saa dàpp arut beeg bayaan beeg mantiq nan sa maam ne ne essayé naa ko ba xam ne mat nga ko wa mu waasilan xamlal amaanati Oustaz Assane en deux mil vingt la mam Malick génn àdduna di caatu Serigne Babacar si Serigne Mansour si Jamil nekk xalifa yi Serigne Moustapha si Jamil nekk xalifa yi mam Malick Sall nekk xalifa yi Serigne Babacar si 2020 la mam Malick génn àdduna kenn waxul kan moo war a toogee xilaafa yi Serigne Babacar lam laame wuñu ko werante wuñu ko bi mam Malick génne àdduna dog la xel yëpp xam ni doomi Serigne Moustapha si Jamil surtout Serigne Babacar si surtout Serigne El Hadji Malick moo war a nekk xalifa yi Serigne Babacar ci mbaaxam ci gorom à l'âge de 45 ans ci la Serigne Moustapha Sy Jamil génn àdduna Serigne Mansour ñëw toog gérer njaboot gi gérer famille Mame Malick Sall xool njabootu Serigne Babacar 2022 Mame Malick génn àdduna 2020 2021 gàmmu Tiwaawan jot tàddeeluñ tàkkusaanu Baye Jamil nan sama maam nee sa maam nee na sa maam nee na ba minuit une heure du matin takkusaanu Baye Jamil jeex mu des gàmmu Tiwaawan siis ba borom daara ji toog nan sa maam nee na sa maam nee na ba bëgg firi yaa way la abrahatin yàlla weddi jamonoy dox Serigne Cheikh toog Serigne Abdou toog Mame Malick toog yaa way la abrahatin toog place ba deux mille vingt et un Serigne Mansour Jamil nekk xalifa yi Serigne Babacar si a ko tàkkusaanu Baye Jamil ñu escorté ko mu jëm raw bu Serigne Babacar ziyaare maamam ñaanal ko ziyaare maamam Seydi El Hadji Malick ñaanal ko ziyaare maam Abdoul Aziz Dabakh ñaanal ko borom daara ñi nekk ci biir suuf nan ko gàcca ngaalaama maa nekkoon borom limousine bi yaay borom jàllaa bi dugg jàkkaarloo bu raw bu Serigne Babacar xool siège bi maam bi Serigne Mansour daan toog siège bi bi Serigne Abdou toog la toog mate siège bi ndeyjoor mate càmmoñ yaa way raa abrahatin war a dàqe borom daara ji ne woom waasilan xamlal amaanati waasilan xamlal amaanati innaha borom daara ji nee na ko woom waasilan kaay nga yeggalil ma xamlal amaanati yenu kóolu ti diggal nan la innaha borom daara ji ne ko li ma lay wax boo xamul lan la innaha nasru sariyaati borom daara ji nee na Serigne Mansour innaha boo xamut li ma lay wax nasru shariati ndax li ma bëgg ci la nekk Serigne Mansour si Jamil yow rek yaa dégg anglais ci si bu set wecc yow rek yaa dégg français bu set wecc yow rek yaa dégg espagnol bu set wecc yow rek yaay dem màkkatal mu karama di làkk arab yaa fa at yu bare bare bëri nekk ak naari yaay wax anglais bu set yaay wax arab set you have the best if you generation innaha nasru shariati innaha li ma lay wax na sunu sariyaati mooy nga tasaare sariya bi tariqi tijaani borom daara ji li ko wax tariqi tijaani tariqa bi fu mu yegg yow la waaye damay laaj ku bëgg Serigne Mansour bu jógee taxaw a bu am yàlla na fajo suura bu ngeen xamee Serigne Mansour borom daara ji moo ko ñaan ne Yaxya borom daara ji nee na 2006 laay wuyu ji sama borom damay ñaanal doomi Seydil Jamil sopp Seydi Jamil Yaxya borom daara ji nee na xam naa ni yaxya dina wéet ci jamonoom maa ko daan jàngal xilaas maa doon toog ak moom maa ngi ci biir suuf mu may jàngal xilaas borom daara ñu ne ko yaay yaakaaru Tiwaawan yaay surtout maam Malick Sall yaay surtout Seydil Hadji Malick yaay surtout maam El Hadj Malick ay surtout Ndel Salim man di mucc borom daara gi nee na ko ci lépp loo ragal déggal borom daara gi nee na ko maa ngi la koy ñaanal ci barke ki nga xam ne bi wéegee asamaan yàlla déyante la na ak moom ay waay Mansour ana munawiru suduri mama du déggal xam nga lu ma neex di bind xasida ki nga koy bind ngi ci yeneen liggéey waaye ni xalima gi dawee Oustaz Assane ni muy bànneexoo déggal Mansour ana ñun rekk ko moon Mansour yi Mansour aka Mansour aki man aho Mansour ahu Mansour aha waaye Mansour ana borom daara ji nee na man suur mii ñu ni ko lu mu def mu ne maawila suduuri borom daara ji nee na maa daan am ganu anglais anglais yi yegsi dégg naa arab dégg naa arut dégg naa mantix mën naa sañse waaye yàlla dogalul ma dégg anglais xool naa sama xel kër Seex a Seydil maa Malick ba mu jeex Serigne Mansour si Jamil mooy ki ma ci doy borom daara ñu ni wool leen ma ko nee na buñ ko woowee mu toog jàllaa bi bi rafet lool ma sol ñetti abdu mu rafet lool anglais bi wax may xool Serigne Mansour mu yëngal jox may déglu léeg-léeg ma wax ak moom olof boole ca arab sëñ Mansour jëlaat ko defaat ko anglais defaat ko anglais duwaat ci arab ci biir borom daara ñu ni ko Yaxya dundal di am jàmm nekk ci sécurité yàlla musal la ci ayu noon ak lu ñaaw lu bàyyeekoo ci jinne hatta tura khalifatan lil jaddi yaa ila bayit boobu moo ma gën a neex ci bayit yi maam xam nga lu ma yëg bayit bii sa tërandoo ko bind borom daara ji bi muy way lii mooy xalifa cheikh waaye sa tërandoo maam abdou li sëñ Mansour naan fii dara beesu fi sa tërandoo mooy xool sëñ Mansour si Jamil ba ci xam nga lii kañ la kañ la 2013 wala 93 1993 xoolal 1993 ak léegi ñaata at la ah 30 ans xoolal 1993 la maam Abdou toog ba ci yàgg xoolal ñaan gi mu ñaan mu ne ko xatta tura xalifatan lil janti xam nga lu muy firi yàlla nga nekk xalifa yi Serigne Babacar Sy maam Abdou nee na ko xatta tura xoola 93 di nga dem ba nu lay séen xalifatan lil jadd nga uutu sa maam Serigne Babacar si ndax borom daara ji dafa ni borom daara ji dañ koo laaj waaw bu nu amul woon photo Serigne Babacar naka la ñuy def ba bëgg ndax ndaw ñi bëgg nañu ko mu ni Serigne Babacar bu leen rawee ci jëmm raw leen ci mbaxane raw leen ci jikko raw leen ci taxawaay raw leen ci xar kanam bu ngeen ko mënta xàmmee borom daara jee wax nee na mooy sama baay maay deuxième position ci moom lu ma leen wax jàpp leen ko ñu ne ko ku sa baay dunduroon mu ni Serigne Mansour Sy Djamil nee na mislul xalifati borom daara ji nee na comme maa moom Serigne Babacar si ñu ne ko ci lan mu ni fii sax yi ci jëfam borom daara ji nee na boo fekkoon jamonoy Serigne Babacar gis Serigne Mansour Sy Djamil da ngay wax ne ay seex la ñu fii sax yi ci jëfam ñu ne ko ak lan mu ni wa kur yi lil baatil à l'âge de 37 ans. le Serigne Babacar nek khalifa xalifay al Hadji malik à l'âge de 45 ans ci le Serigne Mansour nek khalifa Serigne safa si jamil wa waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh محمد ba samaatu bind si man ñaari xasida sam baay Mansour bind si man ñaari xasida te nekkuma fi woon li ma ko mooy nekk bi ma nekk Jadda pendant vingt sept ans si ndigalu Cheikh Seydou Mouhamadou Moussa waaw ah. moo tax sëñ Moussa mënu ma ko fay moom moo ma affecté Jadda man Addis Ababa laa bëggoon demuñ ma ñëwal ma ñaanal la ma ñëw jóge noonu Londres laa nekkoon fa la pare samay étude ma ñëw ma ni nga Addis Abeba proposé la ma contrat mu ne ma bàyyil ma dénk la yonent bi yonent bi ne diggante sama sama leer rek la la kon nag dawal nga naan si leeru yonent bi ba sa xol dafa mel na su fekkoon mu nekk moo woon jënd pendant vingt sept ans di ay teraanga si sama ay waayu sama maam sama baay xëy na lu mu def Fass njëriñ kon nag lay dellu lépp sang baana a bëgg suur la ba nii ma waay. Seydi Jamil te boo Seydi Baana Fass. yaay sang baana Fass. def leen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 سن لخيتك وعلى النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا جاي